Sunugal 24 ndax Mame Matar Gueye bu Jamra Sénégal yëpp xam nañ ko un homme respectueux boo xam ne bu ne dama faw ñu koy déglu mi nga ak Moustapha Sy mi Moustapha Sy mi mag magam ñoo daan foondoo ñoo daan footballandoo daan bii égaat tëggal tappe bu jëkk ko man su fekkee ne man jullit la damay wax fii ci seen kanam ne à l'instant même su ma jógee dinaa wax abokaay yi ñu retirer plainte plainte bi parce que imaam nee na yonent bi nee na nit nit ku dul mer mbaam nga waaye boo meree mer bu ñaan la ñaan la pour nga giif nga bañ bañ bañ bañ mbaama la gën te man bëgguma mbaam daal di may gën comme ñoom parce que ma sama xel dafa dem fu sori buñ nee procès bi tele jour la am na ñu pare jóge Angleterre France Italie Espagne jël seen billet noo ñëw fees ki tribunal bi léegi mu nekk jàkkaarloo ay imaam ak kan Wally Seck ma ñaanuma yàlla loolu loolu ma ñaanuma ko yàlla nit ki nag bu ko yàlla mayee yàlla du mayantu de mm-hmm. imaam wax na ko léegi ya même pas deux secondes nee na yonent yàlla Muhammad mi tax ñu bind ñu nee na ku dul mer mbaam nga waaye ku mer ñu ñaan la ñaan ñaan ñaan nga të mbaama la gën noonu am na yoo xam ne su wàlli des joué fii jóge fii dem France di joué dañuy dagg seen billet lu billet bi seer seer dañ koy dagg fay seeni hôtel réservé nangam nangam buuxu moom mu jaral leen ñu ñëw gis ko ne ko wuy bravo yàlla ngo te vice versa nag am na ñoo xam ne waale yi ba jaral na leen jug am na ñoo xam ne Wally jaral na leen jóge bitim réew ñëw ba fii te buñ demoon ba ca bés ba ñu xam ne ñu ñun nous sommes war a nous ne sommes pas des imams mais doyen Matar dana fekk sànq ma ne imam day mandu imam war na lu muy wax mu xam mu teg ci baaraamam xam ne lii mu wax am na man jullit laa man sama waa kër yëpp waa kër yonent bi laa leen tuddee yàlla may na ma doom ma tudd ko Seydina Mouhamed mu may ma beneen ma tudd ko Seydina Alioune beneen ma tudd ko Fatoumata Bintu Rasoul beneen ma tudd ko Aïcha Rasoul beneen ma tudd ko Seydina Ababacar man sama waa kër yëpp ginnaaw waali ak moomi waa kër yonent bi laa leen man du ma jur gër jigéen mukk ci àdduna waaye ah yow day Latif man moo doon sama xarit dëggantaan ndax moom laa miinanteeloo bañ naa ko ba am na benn clip boo xam ne moom laa woy ci yonent bi seen classe ak seen siège laa ko defee muy woy bi ma woy ci rasul waaw donc bu yàlla nammee lii tey ñu ngi lay gërëm bu baax baax baax baax baax parce que yàlla lu mu nam ma defar rek mu defaru parce que Wally am na ñu ko gëm kenn mënu ki dara am na ñoo xam ne lu mu sol moom la ñuy sol am na ñoo xam ne bëgguñu Wally sax waaye seen doom moo leen force forcer pour ñu bëgg Wally par force <laughs> yàlla ngoog waaw ñooñu ñëpp nag buñ ne woon tey mooy bis bi du rafet ci ab bu nettali mm-hmm. parce que imam lañ ko xam mooy yàlla nee na waali ak bàyyam xam nga lu ñu xam far yoo ñu waale gay naago point far yoo ñu waale gay naago warul daje ak yàlla nee na ku ne da da nga war a toog si sa ànd nga nga bañ ko wàcc waaye nag comme yéen yéen fi yàlla teg man de bés bu ñu nee marche góor jigéen maa fay jiitu bu ñu nee tey mooy marche boo xam ne man bëgguma góor jigéen du ma wax ak góor jigéen ah dara ma may xaalis nag ma jël man xaalis moom ku ma ko may ma jël waaye waaye man bëgguma góor jigéen du ma wax ak góor jigéen toppatoo ma góor jigéen man góor jigéen rek su ma li ci yàlla wax rek rek rek rek moo ci te moom laay doxal fii may tegee nag mooy comme yaa ngi soog a ñëw te sa kàddu am na solo waxal ak nii de façon man retiré naa sa nii nii nii nii kàttanu yàlla bu ñu fi paree plainte bi moom di dinañ ko que la fitna est endormie gare à celui qui la réveille évitons de nous critiquer et de faire des jugements gratuits les uns des autres seul le bon Dieu qui conduit les événements du monde est le plus juste des juges c'est pourquoi nous sollicitons nous sollicitons notre pour, pour, nous sollicitons nous vous sollicitons pour demander le retrait de cette plainte pour mettre fin à cette polémique qui ne cesse d'enfler car vous connaissant comme un protecteur des arts et lettres de notre pays un acteur de développement un bon père de famille un poète et conseiller reconnu ambassadeur de la bonne parole John Seck nous vous remercions nous remercions votre épouse qui n'a ménagé aucun, aucun effort depuis 72 heures de négocier avec, dans la discrétion, sans oublier Wally Seck, qui a suivi vos recommandations et conseils et les a exécutées immédiatement. Je vais m'exprimer en wolof démb wala bërka démb ba tey ñu ngi ci dox ndax suñu mbokku imam moo am lu mu wax ba mu andi jafe-jafe ba ñu porte ko plainte ku nekk jël avocat ñu ngi xëccante ñépp a seet si ñu ñu kat rafetul lii di xew ci Sénégal tuuma bu tegoo ci nit nag day metti day jafe ma jóg sol suma dàll seeti ñi mu war a seeti ba egsi fii ci kër gi. bi ma waxee soxna si mu ne ma naa ko may ëllëg bi Séné démb bi Sénégal di football bi ci ñëpp nekkee ñu ngi ci lii ba yàlla defal ñu sutura ak teraanga ba nangul ñu mu ne de fokk sama jëkkër ñëw toog mooy boroom kër gi di suñu kilifa ñun ñëpp moom it mu rafetal ko ñëw wax li ko metti ak li ko naqari ñu ñaan ko ne imaam rek la nit rek la dafa juum nag jumbu metti boo xam ne xëy na ni mu ko waxee andi yaakaaroon xëy na dina am lii mais du dangereux la ndax tuuma boo ko degee ci nit rek pour mu dindi ko wala mu day jafe te day metti wala bi mu fi ñëwee démb c'était un homme très blessé ñu ñaan baayam ñaan ko moom it pour mu ñaan avocat yi ñu teg lii ci suuf ndax Sénégal benn bopp la ñu xam ko moom ci defar traversé na ay étapes yu métti de sa vie doomam it noonu mais moom moo woy ne siiw du jàmmi boroom te dëgg la àddina boo fi nekkee dina am ñu la bugg dina am ñu la bañ dina am ay ndëgg sërëxal dina am ay wax yu ñaaw dina am ay wax yu jafe ñu ne nag ñun imaam waruñu seetaan lii di yàqu te it tombe na ci tey tax benn imam la ndax dañ ko doon defal ay jàmbur sama carte de bi mu ko gis bi ma ko jox gis na ne ne ñu ngi dox ci ay sëy yu yàqu ñu ngi dox ci ay miraas yu yàqu wala ay miraas yu jafe ñu ngi dof ci ay doomu baayaki doomu ndeyaki ñu juboo la ñu nekk ci leneen pour ñu mën a juboo kon ñun suñu mission lii def ci bokk ñun ay imam du fii rek ci lu nekk li ñuy dugg pour di def des médiations bii nag xëj dafa war a fës moo tax mu fës ne nañ ko doon dox dans la discrétion ba mu jeex mais lu siiw la tamit lu mënul ñàkk nekk ñun imaam yi ñuy waxtaan rafetlu ñëw ñaan ko moom mii baayam di kilifa njaboot gi li mu def ci Sénégal yëpp mu wax ko sànq li mu nekk it lépp ci kanamu senegal ñu wax ko ñëpp dégg ko di ñëpp reconnaître ko ko muy wax katu dëgg it ñu ne ko daal dañu bëgg nga jël plainte bi retiré ko teg ko ci suuf ndax jàmm am ci réew mi te yow réew réew mi jàmm nga ko yéene li koy wane démb xol yëpp sedd nañu xol yëpp féex nañu ñëpp tëb nañu ñëpp daan nañu mu tombeek lii ñun daal ñu seetaan match bi. duñ ne suñu yoon nekku ci wànne tamit li ñu itteeloon privé nañ leen ko pour ñu mun ci am résultat mu nangul ñu ko partiellement ba wax ne dina wax ak avocat yi li ci des bariwul dañ ko wax presse bi tamit ñëpp yëg ko ndax lii dafa wër Sénégal ba ñëpp xam ko kon nag imaam yi bu ñu koy dox tamit. war nañ ko dox pour mu am loo xam ne di am résultat bu positif ñu retirer plante bi jàmm am ci réew mi jàmm am ci fépp ñëpp seen xol libéré wu te mu bañ a ba am ay commentaires yuy déborder wala yu ëpp donc loolu moo doon suñu dox tey ñu ne ñun dinañu fi ñëwaat fekk presse bi waxtaan wax ko seen kanam ne ñun ñoo sàkk loolu pour yàlla suturaal ñu jàmmal nañu yàlla ñu yàlla jàmmal jàmmal suñu réew defal ñu njaboot defal ñu nawetu jàmm jàmmal suñuy kilifa te ki fi jóge it yàlla na ko yàlla yërëm muy Ousmane àddina moo bindoo noonu kenn dëkku fi ñëpp ay dem moom demam bi yàlla dekki aljana ci yërmande suñu borom te yàlla na ko yàlla defal tawfiiqu illaahi ba mu gisante ak yonent bi te ñi fi des tamit yàgg ko ñaaneel ñu partagé tiis boobu ak ñun ñii ñëpp ndax Sénégal ñëpp ko bokk Thione Seck kenn xamu kenn du ko fàtte ci Sénégal man démb laa ko mosa nuyu sama loxo bii démb la mosa laal loxoom kër gi démb laa fi mos a dugg xamoon nu mu mel mais ñu baax laa fi ak accueillir nañ ma nangul nañ ma may nañu ma kon nag coon du ñu def lu dul gërëm la sant la ndax defaral nga Sénégal ku war a defar waroo yàq ku ñu tooñ nga mer waane mer seytaane rek la ndox yàlla bi nga amee xolu jullit ba retiré li nga waxoon ñëpp nangul la ko ndax nit day juum yaa ko wax te loolu am na wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Thione jërëjëf mon père jërëjëf Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net